asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ni ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot lu ko dalee dix-huit heures jàpp dix-neuf heures ñuy waxtaan ak yéen ci lépp lu ñel wàllu wérgu yaram te ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Bintou jàpp moom nag mu ngi nekk secretaire général adjoint bu SAMES docteur Dia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Oulimatou euh, di la gërëm di la remercier ci invitation bi di nuyu sa auditeurs yëpp di nuyu sénégalais yëpp aussi. Mm-hmm. di la jaajëfal tamit ci nangu gi nga xam ne tey nangu nga ko ànd ak ñun tey sunu émission Wassare santé tey nag ñuy def li nga xam ne moom mooy bilan bu Covid 19 bi waaye laataa loolu rek euh, dañuy présenter un peu SAMES ngir ñi nga xamante ne xëy na euh, xamuñu ko. waa jërëjëf euh, SAMES nag soo ko déggee. bu tout bu ñuy doog a commencé dafa nekkoon syndicat autonome médecin du Sénégal mhm. léegi nag bu ñu demee ba quelque temps derrière ma avant seen congrès bu mujj bi mhm. pharmaciens yi médecins yi euh, dañoo jugé important ñu dugg biir SAMES. Mhm. parce que soo xoolee si hôpital yi si district yi si centre de santé yi ak si euh, euh, yenn hôpitaux yu bëri surtout ñu mhm. ñoo fay nekkandoo ñun pharmacien médecin chirurgien dentiste donc ñoo bokk problème yu ñuy dund le fait que ñu bokk problème yi ñu dund nag moo tax soo xoolee ñu ne autant ñu dem ensemble te d'autant plus que ñun ñëpp ay doomu faculté de médecine lañu ñun ñëpp ay docteur lañu loolu moo tax ñu ànd lënkaloo euh, dugg biir SAMES met ñun pharmaciens yi ak chirurgien dentiste yi ñoo mujj a dugg médecins yi ñoo ko créé woon ñu ñëw fekk si leen. Mhm. léegi mi ngi tudd léegi syndicat des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes. du Sénégal. Mm-hmm. am na solo donc tey jii di docteur Dia ñu gis ne euh, feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus mu ngi dugg ci biir réew mi daanaka tey daanaka démb la def ñeenti weer quatre mois. mu nekk feebar boo xam ne lu ëpp fu mu toll nii daal euh, téeméer ak ñaar fukk ak juróomi nit génn nañ ci àdduna mm-hmm. te yow boo ñu def doon defal tey benn bilan par exemple tey ak euh, par rapport ak côté nombre de cas yi nga xam ne jot na am mu toll ci juróom-ñaari junne ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent lan nga ñuy wax pour pour commencer. ah waa jërëjëf euh, Alimatou je pense que bilan bi euh, soo ko xoolee euh, bilan bu satisfaisant la. Mhm. parce que soo xoolee dëgg la am na ay ay décès mais ci commencement ba je pense que li yëpp waxoon nañ ko parce que feebar la boo xamee ne amul garab. Mhm. feebar la boo xam ne amul vaccin pour prévention. Mhm. donc euh, et feebar la aussi boo xamee ne contamination bi c'est-à-dire wàllante bi dafa yomb. Mhm. waaw loolu moo tax depuis commencement bi dañu waxoon ne nañu miser suñu doole yépp ci ci ci ci prévention c'est-à-dire ñu moytu di wàllante feebar bi. Mhm. Euh, loolu moo tax soo xoolee depuis le début dañuy prôner les mesures barrières. Euh, mesures barrières yooyu mooy sol sa masque correctement. raxasu sa loxo ak ndox ak saabu def distanciation sociale éviter regroupement yi. Mhm. Euh, waxoon nañ leen aussi ci commencement bi muy docteur Bousso docteur Seydi ñi nga xamee ne ñu ngi ci lutte bi yëpp soo xoolee même langage la ñu am dañu ne ñi nga xamee ne ñoo am doomu jàngoro bi plus ñuy yokku plus feebar bi di gën a law ci dëkk bi. Mhm. ñuy jot mag ñi nga xamee ne ak ñi nga xam ne dañu am ay feebar yu sew sewaan feebar yu sew sawaan yooyu nag mooy tension diabète les maladies chroniques diabète euh, insuffisance rénale mm -hmm. euh, plus feebar bi di yokk ci population bi plus ñooñu di am feebar bi plus ñuy am feebar bi plus risque bi ñu am ay ay ay mortalité di yokk loolu moo tax tey ji ñu egg mm-hmm. cent vingt cinq décès boobu soo xoolee euh, bëri na parce que benn bakkan sax su ko nit ki ñàkkee Euh, métti na waxuma laaj nag bu nekk ba teg mm. waaw loolu defe naa lu doy waar la waaye nag dañuy xool aussi ne euh, affaire bi du ñun rek àdduna wërngal këpp la laal te bu mu laalee àdduna wërngal këpp aussi bilan bi aussi ni mu diisee ci yeneen dëkk yi diisee wu ko fii ñu ngi koy sante yàlla di ñaan suñu borom may ñu kàttan xarañ ba nga xamee ne Euh, cent vingt cinq yi sax duñ ko dépassé. Mm. tey ñu gis ne quand même Afrique euh, daanaka dans l' booy xool euh, am na as loo xamante ne yàlla jàppale na la ñu ci parce que bu ñu gisee waa OMS ak ñi ngànk wàllu wér gu yaram ci àdduna prévision yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci Afrique hécatombe gi fi naroon am ak yooyu noonu mais gis nañ ne ba léegi ñu ngi laal bant loolu gisaguñu ko fi. Mm-hmm. malgré que suñuy doole bariwul ci wàllu matuwaay wér gu yaram ak yooyu. Mhm. Hmm. Mhm. Euh, effectivement li nga wax dëgg la soo xoolee situation Afrique tey jii ñu ngi nekk trois cent vingt six mille neuf cent quarante trois ñu am six mille cent quarante neuf décès nga baal ma nag lii. Mhm. soo xoolee Sénégal ñu ngi ci cent vingt cinq. Euh, dëgg la parce que OMS aussi ñun euh, euh, vision bu ñu am si maladie bi vision boobu la am dafay def ay prévision mm euh, prévision boobu aussi daf koy teg ci ay ci ay données ay données épidémiologiques waaye nag euh, sant yàlla euh, man je pense que li may retenir ci ci ci loolu. Mhm. mooy Sénégal duñu teel a jël ay mesures. pour ñun occasion la ñu féliciter président de la république parce que nag euh, li mu waxante dëgg rek. Mhm. bu feebar bi amee ci yeneen dëkk yi ñun dañu am temps jàng. Mhm. parce que feebar bi njëkkeewul Afrique dafa njëkk ci yeneen continent yëkk ci yeneen pays yi. donc ñun Sénégal boobu fekk na ñun ñi ngi jàng ñu ngi xool. Euh, président bu mu jëlee aussi responsabilité mu woo acteur de santé yëpp toog ak ñoom laaj leen lan ngeen xam si feebar bi lan ngeen xalaat na si suñ ko defee feebar bi du law boroom xam-xam yi tamit wax ko ay mesures. Mhm. defe naa moo indi woon mesures yi ñu def yëpp euh, euh, état d'urgence bi kii bi ni ñu koy waxati sax regroupement yi nga xam ne dañ ko éliminer woon. Mhm. yenn yenn yenn cérémonie yi nga xam ne dañ ko dañ ko éliminer woon aussi je pense que yooyu. moo tax tey jii ñun Sénégal en fait euh, résultat yi ñu am tey ji ñu am ko. Mm-hmm. Euh, dama bëgg rek yokku ci loolu benn affaire. Mm-hmm. muy la prévention. je pense que ak Ebola dañu jàng lu bëri euh, suñu directeur général de la santé wax na ko nee na ak Ebola dañu mettre en place le comité national de gestion des épidémies boo xam ne yàgg na fi sax bi dañ ko mm-hmm. actualiser woon. def ay mesures am ay équipement loolu tamit ay ay points la yoo xam ne point positif yoo xam ne daf ñu jàppale ci xeex bi daf ñu jàppale ci xeex bi. Mhm. donc euh, je pense que loolu ci point yi nga xamee ne moo tax xeebar bi lawul Sénégal yenn law yi. Mhm. à de ça aussi am na beneen point boo xam ne point bu am solo la mooy engagement personnel de santé bi euh, Sénégal dëgg la suñu doole bëriwul mais yàlla may nañu Université Cheikh Anta Diop ñuy former ay ay ay ay ay ay médecins ay pharmaciens ay chirurgiens dañuy former ay équipe boo xamee ne ay ay ay ay xam-xam yoo xam ne même suñu génnee ci ci Sénégal nekk ci Afrique fu ñu munti nekk suñu waxee da ngay xam ne kii yàlla am na lu ko may donc loolu aussi dañ koy remercier suñu professeurs yi nga xam ne ñoo ñu jàngal loolu si seen mérite la. Mm-hmm. en même temps aussi dañu à côté de l' équipe médicale bi nga xam ne ay docteur la dañu am équipe boo xam ne ay paramédical lañu infirmier pharmacie infirmier euh, sage femme mhm. euh, les communautaires qui travaillent avec ñun nit ñooñu ñëpp dañu nekk ay nit ñoo xam ne dañu soudé ànd ak équipe médicale bi mhm. liggéey ak ñoom donc je pense que loolu mooy li nga xamee ne aujourd'hui moo moo ñu may tey ji fu ñu toll ñu am résultat yi waaw ñu am résultat yi. Mm. je mais, mais tey docteur Dia dañu gis ne dañoo dem ba jamono joo xamante ne c'est vrai début bi askan wi dañoo euh, am loo xamante ne ci la ñu tënk woon maanaam moom mooy matuwaay yi nga xam ne mooy état d'urgence bi donc ñu doon daal euh, mettil bu baax a baax mbir mi ba tax na sénégalais bu ci ne da nga maanaam te doon respecter mesure yi euh, ci sa kem kàttan waaye tamit di moytu ndax comme li ñuy wax rek naan. Euh, sénégalais moom ragalul <laughs> yàlla waaye ragal na alkaati ni mhm. ci langage courant bi ñuy wax euh, mhm. mais dañu dem ba ci biir bi nga xamante ne relâchement am na mhm. assouplissement am ci côté nguur gi mu gis ne askanu ñoom fu mu toll nii ñoom tam dañoo déchaîné parce que regroupement yi tàmmaliwaat na tour yeeg ngénte yeeg yooyu tàmmaliwaat na donc yooyu nga xam ne yëpp ay mesures yoo xamante ne jëloon nañ ko euh, daanaka fu mu toll ni safaan wi la ñuy gis waa loolu dëgg la loolu constat la boo xam ne ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët. Mhm. Euh, je pense que aussi il faut que Sénégalais yi comprendre ban contexte moo poussé tey jii état Sénégal mu def tey jii assouplissement mesures yi. Mhm. xam nga ñun dañu nekk ci dëkk boo xam ne suñu doole bëriwul. Mhm. Euh, nekk ñu comme ay France nga xam ne même soo liggéeyul su weer bi deewee di nga am cinq cent et quelques euros yoo xam ne dina la permettre nga fay fi nga dëkk jënd say lekk xam nga. te mu téye la quelque temps. ñun mhm. dañu nekk dëkk boo xam ne nit ñi dañuy def taaba taaba. Mhm. Ah, même bu fekkee ne sax am na kenn kuy liggéey dina supporter dix ou bien cinq personnes yoo xam ne liggéeyul. Mhm. Euh, loolu moo tax benn moment aussi la santé elle est elle mais aussi il faut que nit ñi lekk il faut que nit ñi aussi euh, mun a faju suñu feebaree parce que tamit soo soo lekkul soo feebaree beneen feebar bu bokkut ak ko bi munoo faju wala munoo jënd garab. wala sa maladie chronique yi ngay traîner munoo jënd garab ah, indi beneen problème. loolu moo tax président de la république bu mu discuter toujours ak euh, acteurs yi nga xam ne ñoo yor santé ak ñi nga xam ne ñoo yor économie gouvernement ñu proposer assouplissement mesures yi man je pense que euh, état état def na lu mu war a def. Mm-hmm. population yi aujourd'hui la balle et dans leur camp ñoon ñoo waroon xam ne bu ñu wàññee mesure bari bu ñu wàññee bu ñu wàññee mesure restrictive yi ñu tegoon euh, c'est pas pour ñu dem def lu leen neex. Mm-hmm. ñoon dañu waroon prouver ne ñoon. Euh, que liñ leen defal ñoom diñ nañ de confiance war nañu gën a def les mesures barrières gën a mm-hmm. takk seen masque correctement gën a moytu jaxasoo bi euh, gën a respecter distanciation sociale gën di raxas seen loxo malheureusement c'est pas ce qui est constaté mm-hmm. mais c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage. je pense parce que mais tey jii euh, docteur yaa ngi wax sànq lu am solo ci début bi ci njalbeen da nga ni askan wi comprendre ñu li tax nguur gi daal di jël yooyu les mesures mais mm. tey kon mun nañu ne euh, nguur gi kon raté na communication bi nga xam ne waroon na ko tenir aux population balaa muy jël yi lépp euh, ndogal euh, du ma wax ni rate na ko nag c'est vrai mm. que ñu on dans le syndicat mm-hmm. mais aussi on est des des techniciens mm-hmm. parce que aussi la communication aussi dañ ko nekk loo xam ne lu am solo la au niveau du ministère de la santé aussi dañu am vraiment des acteurs yoo xam ne ñoo yor communication mm. soo xoolee le SNAPS dañu def ay ay ay kii yu bëri dañu mm. def ay ay ay ay ay émissions ils ont beaucoup si lutte bi def ay affaire yu bëri bëri pour que nit ñi xam ne lii c'est ça qu'il faut faire. Mm. mais je pense que aussi comme li nga wax rek euh, nguur bi euh, dafa mel ni comme ñun rek. lu ñu bett la xam nga loolu la bett tout le temps da lay mun. Mm. mais nguur bi depuis le début expliqué na. dafa woo techniciens yi ne leen lan la ñu mun def pour moytu nit ñi xam nañ ñi li ñu war a def pour moytu mais malheureusement problème bu ñu am te jii mooy en fait peut-être dans la communication nii ñi dañuy jàpp seen xel ne ñoom euh, comme le Sénégal ay une population jeune ay xale ñoo fi ëpp mag euh, dañuy wax ne suñu feebaree aussi xëy na dinañu wër. Mm. waaw donc duma toog di di di xaar ba xiif ray ma je préfère ma génn ma épanouir que may toog di xaar di di di di di di di daan du ma génn du def lii alors que en réalité feebar bi même su ma dalee aussi du ma gaañ. Mm-hmm. mais li ñuy fàtte mooy. su leen gaañu mun na gaañ seen waajur. Mm. donc je pense que communication bi foofu lañ ko war a euh, gën a accentuer euh, sensibiliser jeunes yi booster seen égo wax leen ne lii seen xeex la sa papa ak sa yaay bi la jur aussi yar la ba nga toll ni nga toll. je pense que boo leen yóbbuwul màkk comme dañu am Sénégal di wax ni damay bëgg a teral sama papa teral sama yaay. Mm, uh-huh. boo leen yóbbuwul màkk gindaloo leen kër. gëndaloo leen oto bu rafet. Mhm. waroo leen indil feebar boo xam ne daf leen di lor. Mhm. ba ñu mun ci ñàkk seen bakkan. Mhm. je pense que loolu vraiment euh, mooy lu ñu war a cultiver renforcer bi aussi ak bi ci ci au niveau des jeunes je que foofu moo des euh, parce que boo gisee loolu euh, tey jii nii bëri na ba léegi ci askan bi ñoo xamante ne sax gëmuñu feebar bi am na boobu ba léegi am na am na ba tey euh, c'est c'est difficile à croire mais am na ba léegi ñoo xamante ne ñoom ils sont dans le déni gëmuñu ne feebar bi am na parce que tey jii peut-être relation de confiance bi nga xam ne waroon na am diggante nguur geeg euh, askan wi lu ci bëri dafa effrité wu parce que déjà li ko waral mooy nguur gi lu bëri loo xam ne diggoon nañ ko askan wi des na lu bëri loo xam ne waxoon nañ ne dinañ ko def defuñu ko ba ci séddale ceeb yeeg yooyu donc ñi ñuy dem ba euh, gis ne mbir yi daal ay naxe maay la leen di saf Euh, waaw euh, dëgg la dëgg la waaye man je pense que euh, sénégalais yi rek ba tey ñoo ñoo comprendre. Mhm. parce que ku taxaw wax ne feebar bi amul. je pense que da ngaa amul tele mhm. télé nag Sénégal ñu ko amul bëreetul. Mhm. parce que même boo amul tele sax di nga dégg ci rajo bi. parce que soo xëyee tey ji ñu lay dimal Europe di la naan la am nañu temps de décès. nga gis États-Unis nu ñuy kër këree. nga gis Europe nu ñuy njëkkantee di xeex ak feebar bi ci seen aéroport. tëj seen i seen seen i dëkk nit ñi dëkk ba kenn nekku fa Champs-Élysées Paris nga gis nu mu biddee te boo dee xool télé bi da gis touristes yi nu ñuy buuxante ah nga gis euh, hôpitalu extérieur dëkk yi nekk ci bit ñu mel ak ah, hôpital Sénégal sax parce que hôpital Sénégal bu feebar bi amee au début c'était un peu difficile mm. hôpital yi da ngay ñëw ñu ne la non sa médecin bu la joxul rendez-vous mënoo ñëw wala mënoo dugg wala lii ak lii en tout cas le service n'était pas disponible au début mhm. parce que vraiment c'était vraiment la la dépendance ku nekk xamuloon fu muy teg tànkam mhm. donc loolu noonu li nga xamee ne moom moo waral jaxasoo boobu yëpp mhm. donc je pense que loolu rek même su fekkee ne gëmoo ne feebar bi am na gëmoo ne feebar bi mun na la gaañ yow fu gisee loolu rek war nga xalaat ni ah lii du ay naxembaay parce que naxembaay nag du loo xamee ne mooy tax ñu ñi nga xam dañ dañu doon di liggéey di di dem si ay voyage d'étude di def ay ay ay ay séminaire dara amatul ci dëkk bi lépp na selaw fu 9h jotee ñu tëj euh, kër yi ku nekk fatu sa biir xam nga loolu nag du ay mm-hmm. du naxe mbaay mm-hmm. euh, je pense que par rapport nag ak ak dund beeg yooyu noonu mm-hmm. euh, xam nga aussi li ma wax rek affaire feebar bi moo indi problème yi yëpp Mhm. parce que ku sañoon doo toog di tàllal ay loxo sax ba euh, état di la jox ay ceeb ak ay dugub. Mhm. que sénégalais tàmm na jug mhm. euh, ci nekk soo xëyee la matin ngay dem ma ngay dem di liggéey yi dañuy gàddu seen paan jóge marché jën nga takk seen digg ba mu dëgër boot doom da ngay xam ne Sénégal ay ay liggéeykat moo fi nekk euh, dund bi nag distribution beeg yooyu je pense que loolu aussi peut-être c'est des a qu'on a tous constaté mm. Euh, bien que en un moment am na ay ay kii yoo xam ne ça s'est bien ay localité yo xam ne ça s'est bien passé mais je pense que c'est des leçons à tirer aussi parce que mm. aussi c'est important ko que situation yu mel ni su amee ku nekk rek li nga war a def def ko mm. euh, parce que euh, état dafay jël ay mesures globales rek mm. kenn ku ci nekk rek soo soo wéetee ci sa kër nga wéet sa biir néeg war nga mën a xool sa miroir wax ni liñ ma santoon li nga xam ne moom laa waroon def def naa ko ak sama akulaay taalaa Mm. en tout cas ñun médecin yi li ñu waroon def ñun def nañ ko ak suñu ak laay taala mm. je pense que médecin yi moom gàcce gàcce ngaalaama waaw moo tax tey ji moo euh, tey euh, <laughs> docteur Dia waa SAMES euh, par exemple mooy kuréel bi nga xam ne yow ci nga bootu waa SAMES ñoom bokk nañu ci njëkk a génn daal di wax ne relâchement bi yëpp boo ko gisee c'est parce que am na benn jaxasoo ak daal mbiccëg mbaloogu am ci décision yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko waaw dëgg la euh, dëgg la loolu moom dëgg la. Mhm. mais xam nga ñun ci biir gouvernement bi lañ nekk aussi parce que mhm. ministère de la santé dëgg la ñun seen ay syndicalistes lañu. Mhm. mais euh, li ma wax rek xam nga feebar bi moom dafa dafa jaxase xelu nit ñi. je pense que gouvernement bi tey su amoon aussi possibilité euh, revenir en arrière. je pense que dina am lu bëri yoo xam ne dinañ ko changer. Mm. parce que soo xoolee ñun au niveau du SAMES on a eu beaucoup de problèmes au niveau des MES au niveau des districts au niveau des hôpitaux on a eu beaucoup de problèmes. Mm-hmm. su jëlee kaawu euh, équipement yi des équipements de protection individuelle. Mmh. na a eu des am nañu ay soucis parce que am na yenn sites yoo xamee ne les sites de prise en charge c'est-à-dire les CTE dañ leen joxoon équipement yu mat. Mm-hmm. mais ñi nga xamee ne nekk ñu woon ci prise en bi. te nga xamee chaque jour dañu leen dem wax ne boo leen feebaree bu leen toog seen kër yi ba loraange fekk leen fi. Mm. boo leen feebaree dem leen seeti docteur mu xoolal leen seen yaram surtout ñu am tension am diabète am cardiopathie dañ leen dem inciter dem ci structure de santé yi alors que ñun ñi nga xamee ne ñoo nekk ci biir structure de santé yi on n'était pas suffisamment protégé. Mm. soo xoolee personnel médical bi ñu bëri. dañ leen a wàll. Mm-hmm. ñi nga xam waxuma ñu nekk ci biir cité yooyu ñi nga xamante dañu nekk ci district ordinaire yi nekkuñu si benn site boo xam ne site de prise en charge ñu bëri ay patient wàll nañ leen ay nit yoo mm-hmm. xam ne dañu ñëw ni leen damaa am ji damaa am ji entre temps jaxasoo nañu ak kooku. bu finalement sax ñu nekk ci centre de traitement yi am na ñu ci am démb docteur Bousso mu ngi koy wax. waa am na mm-hmm. mais xam nga ñooñu en fait mm-hmm. soo xoolee ñooñu ñu mujjee wàll parce que mm-hmm. au début dañu def le tout ba nga xam ne ñi nga xam dañu nekk en relation directe ak centre de traitement yi ñu bañ a am ay problème mu euh, équipement ak protection parce que ñooñu c'est c'est des personnes vulnérables mais ce qu'il faut pas oublier mooy euh, ku feebar du ñëw rek yóbbu boppam si centre de traitement ambulatoire soo feebaree da ngay woote mais am na ñoo xam ne suñu wootee jotuñu dañuy déplacé wu dem ci centre de santé bi leen gën a jege mhm. te bu ñu ñëwee euh, yow en tant que prestataire de santé ñeme woo leen wax ni duma la xool mhm. donc di leen xool bu fekkee yow sa mesure barrière yi nga am foofu noonu quantité bi doyul parce que médecin bi balaa muy jël mesure dafay aussi occupé wu ci personnel am dina jox mhm. sage-femme dina jox infirmier am dina jox personnel am su ñàkk dee am médecin bi mooy ñàkk su problème dee am aussi soo boo xoolee ñooñu noonu dañuy nekk les plus exposés. Mm. donc ñu ci bëri situation boobu moo tax mu ñu ñu wàll leen. Mm. mais lu ci mënti doon rek je pense que ni feebar bi tëddee la rek. Mm. moo tax chaque fois ñu dañ dem génn di alerter alerter wuñu pour sànni xeer dañ dem alerter rek parce xam nañ ne coono bi su lu lu mu gën a métti rek mu gën a métti ci ñun. lu muy gën a yàgg rek bu gën a métti ci ñun parce que coow bi coow bi coow bi mooy ñun amuñu amuñu droit wax ni duñu faj xalaatuñ ko sax. Mm. ku feebar ku ñëw ci ñun dinañ la jël en charge suñu amee équipement dinañ la jël suñu amul équipement dinañ la loolu moo taxoon ñuy yuuxu di wax ni Sénégal def attention invité leen lii moytu leen lii je pense que gis nga course bi du course de vitesse. Mm-hmm. course de fond la ba léegi ñu ngi ci. Mm-hmm. ba léegi ñu ngi ci. te mm-hmm. dañu obligé ñun on est obligé toujours d'être là. Mmh. malgré les problèmes on obligé d'être là loolu rek moo taxoon ñuy alerter. di mm. wax. mu nekk lu doy wax parce que tey jii euh, en fait Covid 19 bi euh, dafa nekk loo xam ne dafa wone euh, ci àdduna li nga xam ne moom mooy sooxe yi tey ci Sénégal lii di Covid 19 wane na encore une fois que ne système de santé bi bëri na ay lënt-lënt ay doyadi yoo xam ne am na ci ci plateau médical beeg yooyu yëpp donc tey yéen médecins yi. Euh, condition de travail demeewul noonu euh, chaque fois ngeen di def ay plateformes revendicatives yoo xam ne du am solution est-ce que tey yaakaar nga ne tey par exemple war nañu tirer les leçons de cette Covid nga xam ne tey bu jàllee dinañ gën a fulaal tey ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram parce que war tey xam nañ ne sans wér-gu-yaram dara mënul dem muy koom-koom di leneen. waaw merci beaucoup merci euh, li nga wax dafa am solo parce que soo xoolee secteur de la c'est un secteur dynamique. Mhm. ñun dañu bëri ay atelier de réflexion yoo xam ne dañ koy tenir euh, di toog di waxtaan ci ci ci santé bi di def ay réformes soo xoolee dañu am le plan euh, de service intégré le plan de service intégré le PSI on a beaucoup d'activités soo xoolee le PNDS la mhm. réforme hospitalière on a beaucoup de on a travaillé sur beaucoup de documents yoo xam ne daf dem wone gap bi nga gap yi nga xam ne système de santé bi am na ko. Mhm. parce que Sénégal dañu bëgg di tabax ay instant yi c'est vrai que parfois dañuy tabax ay hôpital mais ah nañ tabax hôpital fi nañ tabax hôpital fii tabax hôpital yomb na torop waaye la cay waaye hôpital bi soo ko tabaxee da nga war a def matériel boo xamee ne. Mhm. dafay dafay adapté. Mhm. parce que tamit médecine dafay avancé te médecine buy avancé appareil yi dañuy avancé ba pare beneen problème bu ñu am si suñu hôpitaux yeeg suñu structure de santé yi. mooy la maintenance des équipements. Mmh. maintenance équipement dafa nekk lu doy waar liggéey ni ci ak partenaires yu bëri mais vraiment ni mu war a demee demeewu ko donc loolu aussi dafay nekk problème ah. Mmh. et aussi waaw ne loolu tam dafay nekk problème. Mhm. beneen mooy aussi le recrutement. Mhm. xam nga suñu waxee waxu recrutement. souvent nit ñi dañuy nekk di wax ne ñii dañu bëri lu ñuy kaas nangam mhm. nangam mais recrutement bi dafa am solo xam nga li tax recrutement bi am solo. Euh, nit su nekkee ci benn liggéey mu def ko pendant dix ans cinq ans dafa da nga war a kooku dafay aspirer dem ci yeneen am promotion dem def leneen parce que entre temps jàng da ngay nekk médecin chef par exemple de de district bëgg a dem nekk médecin chef de région da ngay jàng tout le dañuy jàng. Mm. soo recruter keneen kooku dafay am possibilité moom dem defi ji leneen dem defi ji spécialisation nekk ci leneen te spécialisation yooyu dafa am solo parce que am na yenn feebar yoo xamee ne ñun suñu gouvernement ak suñuy mhm. population soxlawuñu di génne di fay ji ay millions yu bëri ci biti mhm. su fekkee le plateau est disponible su fekkee ne euh, la compétence est la donc mun nañ ko faj fii mais malheureusement plateau bi fiy nekk du adapté dafay dafay obsolète mhm. personnes yi nga xamee ne aussi dañu débrouiller ba am spécialisation yenn saa dañuy bëgg liggéey sax duñu ñu leen bidd bi ñu war a jox seen spécialisation duñ duñ ko ko jox mhm. waaw ba pare euh, fay bi aussi demeewul noonu médecine mooy liggéey boo xamee ne di sama maam dem wax nee na mënoo cee xalaat euh, euh, di rangale ay oto yu bees mhm. oto yu màgget ngay yor da ngay peinture di rafet rafetal di na naes naesal rek moom kay benn affaire moom ngay am fuñ toll di la ñaanal nga naan waaw yàlla baax na yàlla baax na mhm. mais Sénégal moom vraiment du dëkk boo xamee ne médecins yi mun nañ taxaw wax ne c'est des c'est des personnes riches. Mmh. sinon je pense qu'il y aussi quelque chose boo xamee ne dañ ko war a aussi rafetlu. Mhm. Euh, muy si Covid bi euh, ministère de la santé dafa travailler ci ay documents yu bëri bu Covid bi taxawee rek. état du Sénégal dafa wax ni euh, nañu dañu def ay plans on a fait le plan de contingence bi nga xamee ne dafa multisectoriel c'est-à-dire du secteur de la santé rek yeneen secteurs yëpp dañu ñëw toog ak ñu liggéey wax nan la ñuy renforcer hôpitaux yi nan la ñuy redresser économie donc il y a beaucoup de choses qui mooy boobu mooy plan de contingence bi. Euh, non le plan de contingence c'est un plan du ministère de la santé par contre le plan d'investissement c'est un plan boo xam ne c'est multisectoriel. léegi hmm. plan yooyu euh, en fait problème bi mooy dañu am problème pour exécuter plan yooyu. parce que hmm. financement aussi bi nga xamee ne moom la ñu soxla woon pour que plan yooyu ñu exécuter leen correctement. man dama am impression ne financement yooyu dafa am problème en tout cas niñ niñ ko xalaatee woon noonu lay gaawee ak noonu lay lañ koy mun a jëlee def ko ci xeex bi ba nga xamee ne dinañ mun a taxaw ba tey des na dafa xaw a yéex. c'est que en fait docteur Dia nga baal ma mais loolu la ñuy faral di seetlu parce que tey ji da ngay gis euh, ñu daal di dem ci hôtel bind këyit bu rafet boo xam ne ku ko liir ne ah lii de gonga mais après fale yem day mel ni ci tiroir yi lay daal di dugg donc mhm. finalement euh, population fu mu toll nii soxla nañu loo xam ne lu concret la sur le terrain mhm. loo xam ne lu ñuy gis la Mhm. Mhm. waaw loolu loolu dëgg la mooy li ma waxoon rek euh, ministère de la santé yàlla daf leen dimbali dañu am ay acteurs yoo xam ne vraiment dañu dañu dañu xarañ ci ci ci ci élaboration de stratégie dañuy liggéey ay partenaires yoo xam ne aussi dañuy xool yenn dëkk yi nga xam ne ay Rwanda dëkk yi nga xam ne dañu amoon ay ay innovation ay mesures innovatrices dañuy xool ci ñooñu di créer mais problème bi mooy da ngay créer def sa document ba mu baax mais partenaire bi nga xamee ne moom mooy ñëw appuyer la souvent day am problème parce que moom day ñëw ak vision ne lii laa bëgg si lii laa bëgg investir man par exemple pharmacie intéressé wu ma dama bëgg investir par exemple si si renforcement wu système de santé bi moom mm-hmm. laa bëgg dama bëgg jënd ay ay équipement dama bëgg a tabax kooku mënoo ko forcer. Mm-hmm. par contre nag li état war a def état moo war a jël jël jël temps am toog xool bu baax santé. Mm-hmm. mu xool financement bi muy def ci santé. parce que le financement n'est pas important. Le financement est très, très, très, très faible comparé. Par rapport à l'importance santé. Par, par rapport ak importance santé. Mm. je pense que aujourd'hui Covid bi dafa nekk leçon boo xamee ne man dama ne suñ ci jógee suñ ci jógee war nañu yeewu ba faw. Mm-hmm. en tout cas suñu yeewuwul ci Covid bi man gëm naa ne suñu yeewu du yombaat. Mm. moo tax dama xalaat ne aujourd'hui état du Sénégal dëgg la mi ngi wax ministère mu xool ak acteurs yi mais ba tey des na. des na parce que tey jii su acteurs yi génnee ay documents dañu war a rapidement mettre en œuvre stratégie innovante yi ni ñu proposé mais ba tey affaire yi dafa yéex yéex bi nag ñu daal comprendre ñu fan la. Mhm. parce que boo liggéeyee benn document ni document bi financement bi par exemple deux milliards la normalement war nga mun a commencer décaisser dérouler ñu commencer di dérouler mais en réalité dafa dafa yéex man daal foofu daal laay laay laay gouvernement bi ñu xoolal seen bopp. et peut-être aussi même penser à un rallonge. Mm. parce que su fekkee ne xaalis bi nga xamee ne eh, dañ ko génne woon xaalis bi dañu am impression ne doyul ñu xalaat aussi defaat beneen plan de rallonge. Mm. parce que aujourd'hui équipement yi manqué na si ñun ñun problème équipement sax lañu am ñun. Mm. médecins yi nga xamee ñu ngi ci CTE yi ay lañu par exemple am na ñoo xamee ne benn moment fay ñu leen woon parce que aussi ce qu'il faut comprendre aussi. Mm-hmm. mooy hôpitalu Sénégal. ñi nga xamee ne ñoo nekk ay fonctionnaires u état Sénégal bëriwul. Mhm. la plupart hôpitaux yi dañuy contractualisé ak ay spécialistes ak ay médecins simples ñuy def ay prestation mhm. léegi plus hôpital bi di jaay ay ticket di am bénéfice hôpital ba yooyu si la ñuy fay en fait personnel boobu. Mhm. léegi personnel boobu suñ leen bu amee moyen de fréquentation structure yooyu cela veut dire que. ñooñu seen fay day nekk problème. parce que waa structure bi mm. capitaliser wul ay entrées. du ko am générer ay salaire dafay métti. donc mm. état Sénégal su bëggee dimbale secteur santé na résorber gap boobu c'est-à-dire képp koo xamee ne contractuel lu hôpital nga ñu jël la dugal la fonction publique au moins ñu décharge hôpital par exemple si salaire yooyu. Mm. loolu situation structure yooyu aussi solution la. en tout uh-huh. collectivité territoriale aussi c'est la même chose. ñoon c'est vrai que dañuy recruter mais ñoom tamit seen seen seen salaire yi parfois day poser problème donc vraiment problème salaire bi li ñu ko war a lijjanti dañu état Sénégal dafa war a recruter suffisamment de médecins pharmaciens chirurgiens dentistes infirmiers sages-femmes les mettre à l'abri déjà ñu ne am contrat yu sain ñu xam ne ñii dañuy liggéey su weer dee am nañu as tuut bi ñu yore seen njaboot seen xel dal. en tout cas njiitu réew mi nee na dina mais nag euh, la mu wax ci lim bi moo xaw a néew. waaw recrutement boobu nag soo xoolee ñun ñun pharmacien médecin cinq cent lañ ci am. Mhm. damay rappeler ni juste soo leen xoolee dernier recrutement bi fi mujj am xam nga yàgg na. Mhm. soo xoolee recrutement bi te boo xoolee da ngay jël rek nombre de pharmaciens médecins chirurgiens dentistes yi nga xam ne chaque année dañu génn euh, faculté de médecine. Mhm. soo leen jëlee rek mine de rien chaque année mine de rien trois cent dina génn. soo jëlee ñetti ñetti ñetti corps yooyu ñetti yooyu. mine de rien trois cent mhm. euh, trois cent yooyu soo ko jëlee spécialistes yi ñëwaguñu donc soo xoolee en réalité c'est rien c'est c'est juste une goutte juste benn toq ndox la ci biir géej mhm. Mhm. donc en réalité mais je pense que aussi c'est c'est des efforts à saluer mais euh, li ñu leen di ñaan ci recrutement bi rek mooy nañ ko teg ci yoon aussi parce que bu fekkee ne am na ay nit yoo xam ne ñu ngi woon di liggéey ci yenn structure de santé di fa liggéey gratuitement di fa def ay stage ou bien ñu nekk fa di joxe bénévolement leur connaissance aussi balaa ngay dem di xalaat di recruter ñeneen ñi nga xam ne ñu bees lañu wala ñi nga xam ne xamu leen nga privilégié ñooñu nga xam ne dañu nangoon joxe seen doole ak seen kàttan ak seen xam-xam sans dara. Mm. loolu moom vraiment c'est un message boo xam ne ñu ngi leen koy lancer. pour les spécialistes aussi ñu xool ancienneté les primes d'éloignement aussi c'est important parce que ça permet aussi aux gens d'être motivés et de travailler correctement dans leur zone. Mm. je pense que loolu mooy vraiment appel bi nga xam ne dañ leen koy lancer. ñu xool bu baax ñu bañ a def les mêmes erreurs que on a l'habitude de constater. en tout cas de seen secrétaire général euh, docteur Yeri Camara moom moom génn na fi def fi benn sortie bu virulente par rapport ak euh, tey jii les recrutements clientélistes ak yooyu yi ci ministère de la santé euh, voilà. <laughs> waaw loolu dëgg la docteur Yeri waa sama secrétaire général maa ngi mhm. koy nuyu au passage euh, di mhm. ko féliciter di féliciter aussi SAMES yëpp si euh, travail bi nga xam ne ñu ngi koy def mhm. je pense que loolu suñu rôle la ma profiter aussi pour féliciter aussi personnel de santé bi yëpp nag dans globalité surtout nag euh, xalaat suñu mbokk infirmier yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom chaque jour ak beneen personne bi les communautaires ou tout ça je pense que loolu aussi rôle SAMES la suñu gisee ay incohérence Euh, ci ci ci ci ci système bi ñu décrier ko décrier wuñ ko pour décrier rek c'est que comme ñun on est acteur dañu nekk ay syndicalistes mais en même temps on est acteur waaw mhm. ah, xam nga dañu am double rôle euh, man tey jii dëgg la syndicaliste la maa ngi toog fii en tant que SAMES mais en même temps je suis un technicien du ministère de la santé mhm. dama nekk tey jii mun naa ñu représenter ministre bi mm, donc pour dire ñaari casquette nga yor ñaari boor lañu ñun ñëpp ñun ñu nekk SAMES yëpp paaka ah. ñaari boor lañu ah. parce que docteur Yéri Camara c'est de la région de Sédhiou la. Mhm. donc mu ne représenté ministre bi mooy représenté ministre bi au niveau de Sédhiou. Mhm. donc pour dire pas ñaari boor lañu. Mhm. parce que ñun cadre yi le syndicat des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes ñun duñu duñu syndicat boo xam ne dañuy taxaw di wax ni di kaas di xuloo rek dañu amul sax jot bi. amuñu jot parce que liggéey bi duñu may jot donc ñun syndicat de cadre lañu lu ñu wax rek c'est parce que loolu dañu xalaat ne lu ñu war a a lii problème la lii la ñuy proposé lii eh, am na problème nañ ko defee nii moo tax chaque fois suñu ministère bi jàppalee euh, état jàppale ñu je pense que dinañ am ay solution si problème yu bëree bëree bëri bëri mm-hmm. parce que nag aussi euh, li ci garaaw mooy da ngay da ngay proposer ay solution mais solution yi dañu naan la non non ñun dañuy def lii dañuy def lii parfois daf lay rëcc daal lool daal mooy problème bi. Mhm. ba tey rek may fàttali mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu am mbégte di ci dalal docteur Bintou Dia moom nag euh, mu ngi nekk kon euh, ki nga xam ne moom mooy secrétaire général adjoint bu euh, SAMES di syndicat bi ëmb médecin nekk fii ci Sénégal ak chirurgien dentiste yi voilà docteur Dia. tey dañoo gis ne li nga xamante ne moom mooy wàllub euh, gestion Covid bi keroog professeur Seydi mu ngi koy wax dafa am chaque fois euh, lu bees loo xamante ne feebar bi da koy wone jamono ji moom wax na euh, ñàkk ab ñàkk mën a xeeñcu dara ak yooyu agas yi ak yeneen ak yeneen yoo ne feeñ na si loo xam ne nit ñi xamuñu ko ci woon mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu dëgg la euh, dëgg la feebar bi nag euh, li ko professeur di waxee je pense que yeneen expert aussi si yeneen dëkk aussi noonu lañ koy waxee ñun mm-hmm. dañuy suivre souvent OMS ak suñu yeneen collègues yi nga xamee ne ñu ngi si yeneen dëkk yi Afrique yeeg yeneen dëkk yi dañuy discuter ak ñoom souvent si symptomatologie maladie bi. Mm-hmm. mais bi nga xamee ne moo wóor rek mooy feebar bi mooy feebar boo xam ne kenn mokkalagu ko à cent pour cent. Mm-hmm. xam nga loo xamee ne euh, mokkaloo mokkaloo ko à cent pour cent. mooy li nga xamee ni xamoo ko xam nga ñun euh, ñun suñu ñun presque ñun personnel de santé bi surtout ñun euh, ñi nga xam ne ñooy docteurs yi euh, lu ñuy souvent li bu ñuy faj feebar dañ naan feebar bi nii lay présenté woo ñu ne signe yi lan la ñu ne signe bi lii la lii la lii la mais feebar yu bëri mun nañu bokk même signe c'est-à-dire symptomatologie mais souvent dafay am ay symptômes yoo xam ne moo leen di différencier. Mhm. par exemple nga ne su ma sibbiroo sama yaram day day tàng mais tout le temps dina am benn signe boo xam ne wala ñaari signes yoo xam ne mooy tax nga def différence bi. Mhm. bu ko amul aussi yenn saa dañuy utiliser test laboratoire yi pour vraiment confirmer suñu diagnostic pour wax ne lii lii la en réalité feebar bi nag daf ñu jël au dépourvu. donc il y a beaucoup d'informations yoo xam ne xamaguñ ko. Mhm. moo tax chaque fois dañ dem miser ci prévention bi parce que xam nga balaa ngay feebar. Mhm. yaa moom sa bopp soo xasee feebar rek le docteur bi di ñëw di ñëw di intervenir. intervenir loolu moo tax ñuy wax chaque jour population yi. Euh, góorgóorlu leen ba nga xam ne doo leen feebar. Mhm. parce que boo leen feebaree ngeen amoon yeneen feebar yoo xam ne ñu ngi nelaw ci seen yaram feebar parce que soo xasee feebar rek en fait la maladie c'est une porte ouverte quand tu es malade c'est comme une porte ouverte quand porte est ouverte léppay dugg mhm. surtout nag su la fekkee nag yow amoo immunité boo xamee ne euh, mun na xeex ak ñi nga xamee ne ñooy dugg c'est-à-dire feebar yu sew sewaan yiy dugg mhm. loolu mooy problème bi tey jii euh, je pense que su Covid bi passé aussi Euh, dinañ mun a def ay Sénégal euh, war na mun a def euh, documentation bu baax a baax a baax a baax. ñu mhm. génne ay affaires yu bëree bëri bëri bëri mooy li ñuy wax la recherche opérationnelle ñu mettre en place ay études nga xam ne dinañ mun wax ne Sénégal def na ci lii def na ci lii def na ci lii nit ku ñuul feebar bi nii lay def ci moom nii lay def ci ñoom. Mhm. je pense que loolu ñu ngi koy def si centre de traitement ambulatoire si yenn centre de traitement ambulatoire yi mais mun nañ ko gën a améliorer mais loolu moom vraiment je pense que signe yi moom. euh, c'est vraiment des choses yenn yoo xam ne on les maîtrise pas mais euh, day terewul chaque jour bu ñu confirmer rek on traite parce que traitement symptomatologique bi traitement symptomatique ñuy teg je pense que loolu moo am solo. te pourtant day euh, am na ay début de solution yu ci doon am yooyu garab yi lu ci mel ni Covid organique beeg yooyu mais gis nañ ne daal lenteur ak yéex-yéex daal am na ci. ba sax euh, américains yi ñu ngi ñoom def seen mbiru bopp ak seen remdesivir boobu noonu nga xam ne nee nañ sax Donald Trump daanaka jënd na lépp. waaw waaw dëgg la dëgg la xam nga question bu nga wax dafa am solo si man parce que mhm. man pharmacien la mhm. waaye li nga xamee ne moo am solo ci ci mbir mi rek mooy euh, li ma wax rek feebar bi dafa bett nit ñi bu mu bettee nit ñi feebar boo xamee ne xam nañ ko moom da xam traitement bi mhm. da naan lii lii moo koy faj mais feebar bu fekkee daf laa bett yow da ngay xool nan ngay traité signe yi mooy traitement symptomatique bi nga xam ne dañ koy wax kaaw hydroxychloroquine bi ni ñi xam nañ ko parce que au moins y a eu le professeur Raoul y a mhm. des gens yoo xam ne à travers le monde ils ont donné des études et pour bañ a perdre temps aussi dañu ne ah dañu capitaliser li nga xam ne xam nañ ko kaaw Covid organique bi aussi je pense que recevoir woon ngeen ay responsable ñu wax ci mhm. euh, Covid organique bi dafa ñëw nekk euh, ay en fait c'est pas un produit fini c'est un produit en fait euh, brut boo xam ne mhm. dafa ñëw ñu indi ko ci dëkk bi teg ko fi léegi produit boobu mënoo ko jël jox ko malade yi nii foog nga xam ndax mm-hmm. danga koy travailler waat mu nekk kaas suba kaas ngoon mm-hmm. ndax bu nit bu ko nit ki naanee ndax rein rein yi nga xamee ne ñoo war a filtrer eh, parce que soo naanee garab garab bi day jaar ci sa yaram bi yëpp mais yenn saay day jaar ci sa rein yi rein yi filtré ko mm-hmm. partie bi am solo dugg ci deret bi beneen partie bi nga xam ne baaxul nga saw ko mu génn mais bu fekkee ne nag eh, garab bi amuñu preuve buy wanee ne garab yi bu ñëwee ba ca rein ba ni ñu ko war euh, filtrer baax na soo ko naanee aussi peut-être tey dina dina la mais suba mun na la jural beneen feebar dina jafe-jafe loolu moo tax direction bi nga xam ne moo yor loolu def ci ànd ak teey parce que aussi euh, garab moom mooy li nga xamee ne euh, dafa dafa garaaw dafa mm. garaaw trop te nag Covid bi dëgg la day rayee mais aussi am na ñu ciy tane donc soo jëlee pour ak contre da nga naan nañu jël temps ñu fa ñu xool bu baax ñu seppantal ko bu baax ñu doog a wax ne lii lii la parce que nag état aussi du tâtonner. Mm-hmm. Euh, les directions qui sont au niveau des du ministère de la santé c'est des directions yoo xam ne c'est des directions de renommée dañuy liggéey ak yeneen partie internationale di liggéey ak yeneen direction yoo xam ne ñoo yor wàllu garab ci Afrique soo xasee wax ne lii lii la ah war ngaa moytu sa nawle woo la waaw war ngaa moytu sa yeneen naw lay woola ne la ah li nga wax tegoo ko fu baax dañ mm-hmm. moo tax tout le temps Sénégal dafay dafay dafay dafay suivre procédure bi nga xam ne moom la ñu définir balaa nga naan garab bi efficace na mm-hmm. malheureusement nag c'est des c'est des procédures qui prend beaucoup nit ñi tamit ci période bi ñu nekk nii dafa xaw a métti mais daal man daal li may ñaaxaat a askan bi euh, di leen di leen di leen di leen ko dénkaat mooy ñu góorgóorlu ci mesure barrière yi mm-hmm. parce que faj bi nekkul ci seen loxo faj bi ci loxo docteur yi ak yàlla la nekk. Mm-hmm. waaye li nga xam ni moo nekk ci seen loxo mooy vraiment protection bi prévention bi raxas seen loxo ci seen loxo la nekk mu set mun nañ ko. mais takk ko correctement aussi ci seen loxo la nekk def distanciation sociale loolu ci seen loxo la nekk li nga xamee ne nag yow mun nga ko def pour aar sa bopp leer na ne lii la def ko balaa ngay egg ci phase boo xamee ne dootoo maîtriser yow li lay dal. parce que mm. boo xasee feebar nag xamoo xamoo lu ci topp. Mm. feebar moom dañuy ñaan yàlla nga wër. Mm. mais leneen loo xam ne du wër aussi mun na ci topp. mun nga jàpp ne peut amoo benn feebar parce que seetoo sa bopp. mais xëy na feebar baa ngi dàq ci ci yow ko. c'est ça parce que Sénégal nag dafa bëri ay nit yoo xam ne dañu am feebar yu sew sewaan ñu bëri dañuy dox di wax ne wii man jeune laa man lii laa. daluma aussi a beaucoup de choses. ñu jigéen Ah, xam nga am na ñoo xamee ne ñi ngi ci ñi ngi ngi utiliser yenn produits yoo xam ne ah, àndu tagul gi yaram par Sénégal amuñu habitude di def ay billan nit ñi dañuy toog rek di wax ne yàlla baax na bëgguma xam bëgguma xam donc su affaire bi ne këpp sa kaw fekk ne am nga leneen loo dem woyaale affaire bi néewal la doole bu la néewalee doole jàngoro boobu gën a am doole ci sa kaw donc bu boobaa aussi doo xam foo jëm te bu boobaa lépp mun na arrivé mm-hmm. moo tax daal vraiment nañu góorgóorlu ci prévention bi nañu ci xeex ak doomu jàngoro bi balaa moo egsi si ñun. Mm. laa leen di dégg sax keroog euh, docteur euh, mu ngi koy wax. Mm-hmm. si je ne me trompe defe naa docteur Bousso la. ou professeur nee nañu am na ay mm-hmm. ndaw yoo xam ne dem nañ ba nekk cas grave. am na mm-hmm. quatorze euh, quinze ans si je ne me trompe ak dix huit ans ak trente quatre ans te ñooñu ay ndaw lañu. te am na si ay cas grave. loolu la en fait mooy comorbidité yi may wax rek. xam nga ñun en fait Sénégal farlu ñu faju Sénégal soo xoolee euh, surtout ñun jigéen ñi sax ñoo xaw a tane góor ñi góor ñi yenn saa yi dañuy wax ne tant que ñi ngi wër rek. Euh, amuñu problème jigéen boo ëmbee di dem ak yooyu seet sa. waa jigéen ñi waa mm. jigéen ñi dañu bëgg hôpital parce que jigéen ñi dañuy dem consultation prénatale. jigéen ñi yenn saa yi dañuy mm. am ay problème de santé ñu dem pharmacie laajte conseil. jigéen mm. moo gën a bëgg wër gi yaram. que góor góor moom tant que mi ngi xëy di nekk en forme rek day wax amul problème. wala moo naan mënuma tëdd dama am njaboot. <laughs> waa waa léegi nag su feebar bi ñëwee dal ci sa kaw rek parce que feebar mooy loo xamee ne su la dalee rek day mettre à nu sa déficit yi nga am yépp waaw déficit yi am na ñoo xam ne dañu am ay problème insuffisance euh, cardiaque te xamuñu ko dañ naan damay xapat rek man damay def lii man damay solo damay lii mais duñu mës a dem consultation léegi nag su la feebar bi dalee déjà yow sa problème yooyu nga dem jàmbat euh, parce que soo feebaree xam nga doo lekk mm-hmm. premièrement lekk bi dootu la neex ba pare sa sa sa état de santé dafay dégradé donc jàngoro yu ndaw ndawaan yu nekkoon sa yaram yëpp dañuy profité ci loolu gën a bëri euh, yokk seen doole ànd ak jàng doomu jàngoro bi nga xamee ne moom dafay ñëw ak dooleem léegi ne dañ lay terrasser bu ñu la terrasser nag mun nga am 30 ans mun nga am 20 ans mun nga am 18 ans feebar moom bu la terrasser moom da lay gagné. Mm-hmm. waaw dëgg dinañ la yóbbu ay réanimation dinañ ci jéem mais xam nga nag li am solo aussi te li nga xamee ne moom la ñu war a wax dëgg mooy médecins yi dañuy jéem rek suñu borom moo yor bakkan. mais yow li nga xamee ne yow mun nga ko yow en tant que nit mooy nga aar sa bopp. aar ñi nga dëkkal aar ñi nga xam ne ñoo nekk ak yow loolu yëpp mesure barrière yi moo koy jël en compte. Mm. moo tax te kenn xamul kuy dem parce que ku war a dem rek moom yaay dem parce que gis benn cas boo am Inde euh, mm. pa bi mu ngi am je pense quatre-vingt-douze ans quatre-vingt-treize ans am na maladie cardiaque am na hypertension ak xawma lan te pourtant nekkoon am na Covid 19 bi. dem mm-hmm. hôpital dem réanimation daanaka def ñu yaakaar ne sax pare na mu jékki-jékki. mu wér mm-hmm. péng di dundaat dundam. donc mu mhm. ay cas yoo xam ne yàlla moom moo xam kuy kuy dee. nañu nañu daan fexe mhm. loolu dëgg la mhm. li nga wax rek la réanimation il faut que aussi sénégal yi dalal seen xel xam ne am mbokk bu nekk réanimation cela ne veut pas dire que mbokk boobu moom pare na. au contraire ku nekk réanimation. mun na génn réanimation parce que nag Sénégal li ma leen wax rek euh, pour ñun euh, occasion la pour man ma féliciter suñu suñu professeur par exemple Omar Kane ak yeneen réanimateurs yi nekk Sénégal yépp mm-hmm. yàlla daf ñu dimbali dañu am ay équipe yu xarañ Sénégal euh, vraiment malgré le fait que plateau technique bi nekku fi mais vraiment sénégalais yi dañu xarañ te dañu dañu dañu dañu bëgg seen seen population bu nit amee genre malade yooyu da ngay gis dañ ciy taxaw dañ ciy donc dañ ciy def lépp lu ñu mun su leen malade bi échappé rek dangay xam ne ndogal suñu borom la mais dañ ciy def seen kéemtalaay kàttan mais daal euh, nga nekk mag nga nekk xale euh, feebar bi moom amul amul loolu amul en bi amul logique. Mm-hmm. feebar bi day dóor mag day dóor xale. Mm-hmm. day gaañ xale day gaañ mag. mais nag mag mag ñi li leen di gaañ moo gën a bëri moo tax ñuy wax ne xale yi nañu dimbale mag ñi ñu bañ a egg fenn fi aussi. Mm-hmm. loolu la. voilà euh, li des ci émission bi barewul peut-être dernière question bi ma lay poser mooy tey jii cas importé yi gis nañ ne mu ngi dellu si waat te pourtant ñu ngi fas yéene ubbiwaat euh, li nga xam ne moom mooy frontières yi est-ce que tey loolu du du ñu dem ba ci biir vague amaat ñaanuñu ko. <laughs> waaw kenn ñaanu ko de kenn ñaanu ko waaye nag euh, aussi je pense que Ouleymatou aussi benn affaire aussi foog ñu waxante ko aussi. Mm-hmm. monde bi moo toll foo xamee ne. en fait le monde est à genoux monde bi moo sukk. ci mhm. kanamu mhm. feebar bi. dafa jël adduna bi euh, tourné ko. Mhm. parce que euh, man su ma toogoo su ma toogee tey li ma sama euh, suñu waa di ma tooñee. ñu ma mësuñu xalaat ne di nga toog un mois ferme doo génn Sénégal. effectivement parce que en fait dañuy am habitude di bouger di bouger lu bëri. mais soo xalaatee ne soo soo soo soo gisee ne monde bi nu mu dem dawee dawatu ko. avion yi dem dem ni ñi di jënd ay billets dem ay formation ñu jënd ay conteneurs yi dem def seen liggéey. lépp a taxaw waaw waaw loolu yëpp a taxaw te aussi le monde aussi a besoin de bouger. feebar bi dab nañu on a pris des mesures mais il faut aussi reconnaître que mesures yooyu ñu jël permettre wul ñu lutter efficacement contre la maladie loolu moo tax aujourd'hui en fait ñu nekk di di di di di di di di assoupir parce que quoi qu'on puisse dire. dëkk yeneen ñi nga xamee ne feebar bi dal na leen am na ci ñi nga xam ne góorgóorlu nañu ba feebar bi dellu na ginnaaw. waaye mhm. am na ci ñoo xamee ne feebar bi mi ngi yokk mais cas yi moom man je pense que euh, mënuñu ko daw. Mhm. mënuñu ko daw parce que ñun euh, dañuy nekk Sénégal. am suñuy mbokk yu nekk extérieur nekk France wala ñu nekk ci yeneen dëkk yi. Mhm. donc dañuy bëgg aussi di ñëw ñun aussi dañuy bëgg di dem. donc loolu c'est naturel c'est le monde qui est comme ça. Mhm. mais li nga xamee ni moom la ñu war a jël en charge de façon très correcte mooy ñu mettre en place de mesures de protection c'est-à-dire des mesures de surveillance et de sécurité. Mhm. ku ñëw ñu dépister la tester la bu ñu xalaatee ne loolu ñu mettre la en quatorzaine denc la ba say wér-gu-yaram mu leer leen ne loolu loolu moom mesures yooyu moom il faut que ñu ko respecter ko correctement je pense que mhm. c'est les mesures mais mënuñu toog rek làqatu biir Sénégal rek. <laughs> génn kenn du ñëw. loolu moom vraiment c'est pas possible. parce que le monde est devenu waaw un village euh, planétaire. Uh-huh. c'est plus possible nga toog sa kër nga duma dem duma dikk mënul nekk. c'est pas mm-hmm. possible. émission bi docteur Dia jeex na ñu mayla rek nga tàggatoo ak mbokku auditeurs yi. waa merci beaucoup Laymatou euh, pour jox ñu opportunité bi nga jox tey jii Sames mu toog waxtaan ak euh, population sénégalaise yi. Euh, en même temps aussi autorités yi parce que seen rajo bi ñëpp koy déglu. Mhm. Euh, je pense que li ñuy wax rek euh, mooy lañuy encore di di di di di encourager encore dañuy gërëm di gën a encourager aussi suñu collègue personnel médical bi nga xamee ni moo nekk ci xeex bi boobu ba léegi ñu leen di wax ne nañu gën a takku nañu gën a taxaw nañu gën a dëgër loolu lañ leen di ñaan parce que sénégalais yi dañ leen soxla. nañu disponible pour les sénégalais parce que aussi euh, mbas bu to mbas bi bu dalee ci sa kaw lu toll ni bu dalee ci kaw dëkk dëkk bi mënul compter que ci ay doomam. Mhm. donc tey jii Sénégal moo soxla personnel médical am nañu taxaw nañu farlu. Mhm. léegi nag euh, ñuy enc ñuy wax aussi état Sénégal aussi mu gën a góorgóorlu. Mhm. mu góorgóorlu surtout ci mesure barrières yi. mesure barrières yi nag état daf ci góorgóorlu à ñaar à deux niveaux. Mhm. premièrement au niveau par exemple salaire u médecin yi nga xamee ne ak euh, personnel médical yi nga xamee ñoo nekk di faj ñi ñooñu di jàppale nit ñi ci seen wér-gu-yaram ba ñu mën a dellu seen kër vraiment ku ci nekk li nga war a am bu kenn xaar ñuy génn di def ay grève ak. Mhm. ay pour ñu fay leen ko. parce que mhm. liggéey bi métti na. ndax ñoom au moins amal na njëriñ askan wi. waa liggéey bi métti na ay risque la. képp ko xamee ne war nga am salaire war nga am indemnité nañ ko lijjanti ba mu leer. bu xaar weer bu weer bi dee ñu jox leen seen ñetti dërëm ñu faj seen njaboot faj seen i soxla ñoom tamit parce que ñoom tamit loolu la ñu yaakaar pour dundal seen njaboot. Mm-hmm. loolu je pense que état bi daf ci war a góorgóorlu. Mm-hmm. mesures barrières yi aussi mu rendre ko disponible les équipements excusez-moi les équipements de protection. Mm-hmm. mu rendre ko disponible au niveau de toutes les structures de santé. bu ñu wax rek ne CTE yi ñooy jël en charge parce que nit ñi tey e ñi ci centre de santé yi la ñuy dem ci poste de santé yi ci district bi. donc il faut que structure yooyu nga xam ne nit ñi dañ fay dem ñu jox équipement bu doy nga xam ne ku fa ñëw aussi dinañ la recevoir correctement kenn du la stigmatiser parce que man su soo ñëwee tey sama centre de santé nga may seet si fekk a ma masque aw ma matériel dama lay moytu. parce que dama naan fi feebar na taxaw ma lu indi. Mm-hmm. mais su ma amee dama lay jël correctement en charge li ma war a def fi ma def ko boo feebaree ñu jël la référé loolu je pense que il faut que aussi def euh, effort boobu nga xamee ne équipement de protection yi mu mu jënd ko mu mat parce que tamit euh, utilisation bi dafa xaw a métti parce que dafa nekk loo xam ne dañ koy renouveler. Mm. comprendre nañ ne que yombul. mais vraiment nañ ci liggéey ak ñi nga xamee ne mooy waa PNA ñi nga xam ne ñoo ko yor vraiment bu mu disponible ci structure de santé yi nga xam ne ñoo ko soxla surtout nag structure de santé yëpp parce que fépp la feebar di dem. di dem dëgg la waaw beneen bi nga xamee ne beneen dernier point bi nga xam ne moom laay terminer vraiment c'est vraiment à l'endroit des populations. vraiment tey jii damay woo damay profiter sama présence ma woo Sénégalais yi surtout les jeunes nañu jàppale seen parents yi. Mhm. jàppale seen yaay yi ak seen papa yi ak seen personne âgée yi nga xam ne ñoo leen dëkkal seen kër. parce que affaire bi nag du dama bëgg yóbbu sama yaay màkk dama bëgg a yóbbu sama papa màkk euh, tey jii boo naan su ma amoon dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii xam nga amagoo. Mhm. mais au moins am na lu la yàlla may. lan la la yàlla may tey pour l'instant tey yàlla may na la wër yaram. may na la xel ñu ne la aaral sa bopp nga protéger waale sa yaay sa papa léegi aar bi nag dañ ne la pour nga aar sa bopp aaral leen ñoon parce que yow soo feebaree di nga wër mais ñoon ñi nga xam ne ñooy say waaju suñu feebaree mun nañu bañ a wër mhm. ñoom nañu góorgóorlu parce que balaa ngaa yóbbu nit màkk dafa fekk kooku mu ngi en bonne sant dafa fekk kooku nekk fii dañu lu mhm. ñuy raxas seen loxo ba mu set mhm. ñuy def distanciation sociale am na solo ñuy takk seen masque nag surtout le mot correctement dama ciy insister correctement. Mm. ku nekk na nga góor masque masque sikkim yeeg masque dënn yi. waaw waaw masque sikkim yi et puis masque masque euh, di di di raxas di fóot masque yi ba mu set aussi. Mm. di takk masque di laal sa kanam fu ne nga laal loolu aussi nañ ko éviter. yenn saa tam nga gis ci masque yoo xam ne rek ñàkk takk masque ko gën ndax masque gi dana tilim tilim goo xam ne. waaw lu yàlla xam doy na. loolu la mm. parce que daal bu ñuy wax masque tamit set bi ci la sécurité bi moom masque bi dafa jël ay facteurs yu bëri dafa war a set dafa war a am sécurité donc loolu aussi nañ ci veiller ñu koy takk correctement mm-hmm. donc jeunes yi daal vraiment nañu góorgóorlu nañu gën a góorgóorlu jàppale seen mbokk yi jàppale seen waajur yi ñu dëkkal mm-hmm. waaw tey jii seen loxo seen seen wér-gu-yaramu parent ki seen i loxo la nekk mm-hmm. ku nekk tey naan suma amoon dinaa yóbbu sama papa màkk dinaa ko defal li ko defal amoo xaalis bi mais yàlla may na la tey jii loo xamee ne mun nga ko def ba nga ne feebar bi ci dugg sama kër feebar bi du dal sama yaay feebar du dal sama papa am na solo en respectant juste les mesures barrières vraiment je les exhorte à respecter ça parce que c'est important pour que ñu mën a génn ci feebar bi ñoom rek fu mu toll nii affaire bi nekkatul ci loxo docteurs yi affaire bi mi ci loxo population yi mhm. population yi nañu gën a góorgóorlu métti na nag yombul mais nañu gën a góorgóorlu mhm. waaw maa ngi remercier nag seen. Euh, seen rajo bi bu baax aussi. di mm-hmm. kontaan ci invitation bi. Mm-hmm, docteur bintu Diallo woon nekk secrétaire général adjoint bu euh, SAMES euh, doon waxtaan ak ñun tey ci bilan bu Covid 19 bi dégg ngeen conseil mu joxe nekk conseil yu am solo ngir askan wi gën a farlu en tout cas dañ lay jaajëfal bu baax a baax docteur di jaajëfal itamit auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu. ci la 97.5 Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig daje vendredi bii di ñëw incha allah beneen thème ak beneen invité ci euh, Rewmi FM 18h jàpp 19h.